dossiers yu muy jot je pense soixante dix à quatre vingt dix pour cent des problèmes yu am ci réew mi c'est lié au foncier loolu ça veut tout dire problème nag su amee ci réew doo ko nëpp nëppal da nga koy gérer da nga koy régler à un moment donné euh, c'est vrai que commission de réforme yooyu ñu teg c'était un peu pour ñu wax nit ñi ñu ngi trouver solution mais ba ñu jeexalee liggéey ba gisuñu solution parce que gisuñu application si li ñu xam ne wax nañ ko dañoo bàyyi mbir mi rekk di ko nëpp nëppal si biir nëpp nëppal boobu nag ñu ngi siy loor ay nit. ndax le véritable problème du foncier dans ce pays mooy foncier dafa am xaalis. loolu mooy le véritable problème du leneen. te sooy xool moom wax na léegi sur le domaine national mooy loi de 64 bi. le domaine de l'état bi loi de 76 bi. mu am domaine privé yoo xamante ne à travers le titre foncier. mais lépp dafay revenir si l'état parce que titre foncier même soo ko amee. l'État mun na exproprier pour cause d'utilité publique te boobu soo koy xool nu muy fonctionner boobu ba léegi si biir état bi si biir administration bi am na ñoo xam ne dañuy enrichir sur le dos des population à travers le foncier et c'est ça la vérité cest à tout le problème est lié à ça su doon mii nekkul si zone bu ñu prisé problème yii duñ ko am coow du am su doon nekkoon si yeneen zone yoo xam ne kenn demu fa kenn du laal seen suuf mais dafa nekk zone yoo xamante tey soo jëloon soo débrouillé woon ba am cent cinquante mètres soo ko jaayee mu ngi si am quatre vingt millions. Euh, non beaucoup plus que ça. c'est ton secteur. oui oui c'est mon voilà donc c'est pour dire tout simplement. ñoo yey ni mais si sànni est assez xam nga Papa Assane dafa def benn jeunesse boo xam ne c'est très important. Mm-hmm. man dama jàpp lu xew Ngor c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le parce que y a énormément de pression il la pression sociale il yaa yaa il y a il des problèmes yoo xamante ne c'est des problème de survie yu am parfois au niveau des populations mhm. le manque d'emploi mhm. le manque de perspective le manque géej gi nga xamante ne moom amatul dara mhm. xam nga man yàggul dama dama assister image boo xam ne ne ba léegi dafa des sans bopp nekk gaal boo xam ne dafa ñëw ñu woon parce que d'habitude man dama souvent damay dem plage parce que soriwuma ko. di <laughs> football et tout ça. ñu woo ñun ñu fa nekk pour ñu xëcc xëcc mbaal mi. mais ñëpp dañ ñëw xëcc mbaal parce que occasion la nga amaale si jën. ñii kii et cetera donc c'est la un peu la mm-hmm. dañ ba ñu xëccee mbaal ba mbaal bi yegg si. Mm-hmm. nit ñi dañ ko won ginnaaw. ndax yaa rien. oh ma gis ay femmes yoo xam dañu indi seen tuyau. te ñooñu il sont pas à un mois de la pauvreté il sont à une journée de la pauvreté c'est-à-dire que lu ñu fay jëlee moom la ñu dem jaay suñ ko jaayee si la ñuy jël dépense pour dépense oo seen kër imagine ñoonu seen paan noonu la ñuy te duñu am lu ñu yóbbu mhm. frustration yooyu ñuy dajale si population yi ñu koy dund mhm. ñu war a wut perspective war a am école mhm. war am fu ñu jàngee war am fu ñu fajoo war a am leneen ak leneen ñu xañ leen ko te ñu leen wër nekk ak ñoom am nañu moyen ba faju ju ba États-Unis ñoom ñu bàyyi leen ci pauvreté boobu te ñu bokk même. Mm-hmm. excuse-moi Thierno dagguma la nga baal ma mais le discours et c'est un discours dangereux ñun tant amuñu jàmm ngor ils vous disent ñun tant amuñu jàmm yéen diggoon am jàmm c'est-à-dire tout le voisinage alentour mm-hmm. vous êtes tranquille pépère ñun bu ñu amul jàmm yeen du ngeen am jàmm et ça veut dire beaucoup de choses ça confirme ce qu'il dit mm-hmm. frustration bu yàgg bu ñu non frustration bu ñu accumulé la et et la vie c'est de l'espoir xam nga ku xamante amatul espoir mais xoolatul vie xoolatul leneen. day day jël tous les risques qu'il jàpp naa ne ne foofu la ñu war a dépasser. tey ñu ngi massawu di jaale famille yoo xamante ne ñu ñàkk seen bakkan la. muy vigile bi muy la jeune fille. mais mënoon na ëpp li te heureusement yàlla musal nañu si. parce que xam nga nit doo ko topp ba si mur bi. mais soo leen xoolee événement yi waa Ngor yi topp nañ leen ba ci géej gi. Mhm. ba ñu soobu si géej foofu la mbir mi tolloon. ça veut dire que su fa géej amul woon. ça se fait en fait. Euh, voilà que que ñu egg comment comment ça se fait en fait nit ki comme ni nga ko waxee doo ko topp ba mu sës ci miir bi mais là dépassé mur ba il était obligé dugg ci géej bi maa ngi dégg ñenn ñi naan ni que am na ñoo xam. blessé yi mhm. dañuy obligé yàpp leen ci gaal yi mhm. euh, pour mën leen euh, yóbbu fi nga xamante ne moom mooy yof mu nekk une situation mais vraiment euh, triste pour ce pays en fait. pour ce pays ambulance dugg. kenn du génn c'est impossible. c'est ça en fait comment on comment ci Sénégal en fait. Thierno xam nga Thierno mhm. Mhm. jour boobu. 11h mhm. bu mujj bi xale bi di décédé. 11h ci suba ba 22h man maa ngi ngor. da dégg tell tuy 11h ba 22h ngay dégg tell tuy. ak ambulance piip mel ni Palestine. xam nga xam nga xam nga fii fii question boobu noonu. xam nga xam nga xam nga parfois on met. trop l'accent sur l'autorité de l'État mm-hmm. autorité de l'État dafa am préalable moo war a nekk dernier recours mm-hmm. mais il sa ko ce qu'on appelle en droit le principe de précaution ji nga état bu ne war nga mën a anticiper si ay faits mm-hmm. waroo xaar ba mu ne këtt ne jonn nga ne man am naa doole xool ngeen défilé bi ni ñu amee ay armes mën nañ ko utiliser am nañu ay kii yoo xamante ne ñu ngi leen di entraîner boobu léegi nañ leen entraîner wu si population yi c'est irresponsable man pour man balaa ñuy yegg foofu dafa war am waxtaan d'abord waxtaan bi ñoom commencé woon nañ ko d'ailleurs seen biir. Mhm. mais ba ñu demee ba jàpp ci titre de l'État boobu. léegi jaratul waxtaan 6000 mètres carrés dañ koy jël alors que état d'abord population yi. Mhm. Mhm. surtout balaa ngay jël. danañ naan dañ ciy def li def lii ensuite lu su ndobin reyee sa maam. soo gisee lu ñuul da ngay daw. effectivement le prétexte bu ñu jël souvent dans des entreprises comme ça. et des initiatives comme ça de l'État mooy dañuy jël comme prétexte. dafa am benn projet d'état bu ñu fi def. jël plus ce qu'il en faut. Ouais. maintenant ñu dagg ko jox ko ay nit jaay ko. et c'est ça qui se passe un peu partout man dem naa ay manifeste dem naa ñu ngi wax ay waxu ki mais Mbourkat a Thiès j'étais là-bas Ndengler gis ngeen yeneen ak yeneen gis ngeen bëri na ay problèmes yu mel noonu dañuy jël ay prétexte ne lii lañ fi war a def wala lii lañ ko war a def ñu jël hectare yoo xamante ne après dañ koy séddoo seen biir et des gens s'enrichissent dans ce pays-là sur le c'est inacceptable. dafa am ce qui est dommage dans tout ça mooy que te jii nii euh, hectares yooyu ñuy jël pour jaay ko. malheureusement ce n'est plus nous Sénégalais qui sont capables de les acheter. Mhm. étrangers yi ñoom ñoo koy ñoom ñoo koy am. dama yokkal dara. beaucoup de pays dans le monde. oui benn étranger mën na fa jënd benn hectare. Mhm. xalaatu mi ngi noonu. beaucoup d'États non xam Sénégalais euh, je me dis nit nañ dem ba. Euh, mun duñu dootuñ mënati dëkk Dakar. non xam nga man je je je comme ça doon kii xam nga xam nga xam nga man j'ai côtoyé les populations. li ma la jox exemple Mbourkat. Mhm. moi j'ai vu une dame boo xamante ne dafay jaay marché. bu jaayee dina jël lu ndaw def ko ci dépense mais lu koy jël pour économiser ko. Mhm. am fuñ ko wutal foofu Mbourkat foo xamante ne lu mu am su dee ñaari birig la ñetti birig mu koy def ba nga xam ne jour bu muy couler mhm. jour boobu la ñëw demoo démolir ah. këram parce que nee nañ ko li nga am baaxul mais loolu day mais loolu mais man kooku ba muy wax ak man di ma expliquer mais mënu ma retenir c'est ignoble c'est ignoble on ne peut pas faire ça c'est-à-dire que si ça continue comme ça su dee fu suuf am ñu dagg jox ay promoteur mais ñu yorul dara kañ la am suuf mais xanaa kër yi dañu bëgg ñu teg ay lal di tegalante ku ñuy ni ñuy dundee rëbës ñu koy dundee fi kër yi mais nit ñi dañu war a xam ne ne kër yi dafay màgg mm-hmm. sa papa sa yaay mën nañu am kër ngeen dëkk si ngeen nekk ay frère mais après ngeen wut ay jabar mm-hmm. seen jabar yi dañu am ay doom mm-hmm. benn moment da ngeen di wuti kër feneen mais il faut ñu faciliter nit ñi pour ñu mën a am kër on de logements sociaux chaque fois ñu annoncé ko c'est vrai am na ñu ñuy liggéey mais soo xoolee tey HLM SICAP et tout ça xoolal kër yi ñuy jaay ñaata millions. kan moo ko mën a jënd. mënoo ko jënd donc situation yu compliqué yooyu le sénégalais yi di dund. Mhm. maintenant ne état force laisse à la loi et cetera l' état loolu c' est bien beau. et parfaitement d' accord que état dafa war a exister mais dafa am ay préalable. Mhm. da nga war a am taxawaay boo xam ne taxawaayu yërmande la pour sa askan. Eh parce que ñoom ñoo la fi teg. Mhm. fi waruñu def lépp luy am ñu xool na la ñuy enrichir ñi. di bàyyi ñeneen ñu nekk si ndóol. loolu c' est une boo xam ne la population dafay avance d'une manière boo xamante ne c'est c'est c'est vertigineux mm-hmm. notre démographie dafay yokk te damay wax démographie buy yokk une la jeunesse d'une population c'est une richesse mm-hmm. mais c'est aussi une bombe mm-hmm. su dee dañ ko dañ ko négliger parce que su dee ñiy jànguñu amuñu euh, euh, liggéey euh, toppatoo wuñ leen ñu ngi frustré wu amuñu fu ñu tapajoo et tout ça. ñooñu dañuy bëgg a wane seen bopp si réew mi. te koo xamante ne ne pare na pour jël gaal gi dem. avec tous les risques qu'il faut mm. kooku xam nga ne su nekkee sur nekk ci réew mi mën na risque jël risque yu gën a rëy yooyu donc il faut qu'on évite ça je pense que état am na ci responsabilité